danaa ci nett li jenn wax ak Cheikh Ibrahima Fati daa waxoon ne Sëriñ Tuubaa may gi de li muy rëy rëy bu dëppootoon ne jikko ji ñett ñi du ñëw doomi soxna yi caddo yi doomi soxna yi ak caddo yi ak bokki boppam nee na doomi soxna yi lépp lu ñu di jàng ci lu baax ak xam-xam xam nañ ko ba wuteetuñ ko fenn kon bu dëppootoon jikko ji du ñëw nee na caddo yi itam bu dee wàllu àdduna wut nañ ko ba am ko kon wutatuñ ko fenn ko jikko jëlee indi bokke bopp bi itam nee na nit lu mu baaxle baaxle ay bokkam duñ ko gis kon bokkam yi jikko leen indi suñ borom defal ko ci lu mu mës defal kenn mooy woote ñi gën a sës ci yow di say bokk nongu la doon say taalibe kon Sëriñ Tuubaa loolu la ko suñ borom njëkkee defal mu jël léppam nag jox ko suñu borom. nanguwul dara luy nuru sirki bokkaale boo xoolee xasida yi ba mu jeex sëriñ bi li muy tagg tagg rasulullahi sallallahu alayhi lépp ci suñu borom da koy delloo ku lim ci bayit yi dee bari waaye xasida tawxiid yi fu mu tudde rasulullahi ak may ga la rëy rëy julli ci yenn julli ko kañ lépp da koy delloo ak suñu borom kon dafa jël léppam jox ko suñu borom jël léppam jibbal ko rasulullahi sallallahu alayhi wa moo tax mu wax ne salaatu sitta bi mataxi sitta taatihi bata maati say dafa séddale at mi lii day julli ci rasulullahi lii mu ngoo du ko tagg kon li mu doon liggéey rasulullahi sallallahu alayhi wa lépp génnut tagg ko ak kañ ko ak sant suñu boroom wax ak màggam yëkkati ko wax dara jàmm loolu mooy jëmmi Serigne Touba.